xaal wala ana illa an yataxammadani llahu bi rahmatihi bi rahmati minhu wa fadl abu hurayra moo solo boobu sun bon newoon na doon di sun bon newoon na udxulul jannata bima kuntum ta'malun da ngeen aljanna ci seeni jëf ca suutu ndax li dellu waxaat ne inna alladina am wa amilu salihati kaanat lahum jannatu jannatu firdawsi firdawsi nuzula ca sootu kafi ñi yàlla tey jëf lu baax aljanna jooy firdawsi mooy seen wàccuwaay aay yi ci anam gu noonu bari na lool ci maanaa moomu loolu dafay biral dafay biral ne jëf yi jëf yu baax yi ñooy sabab yi tax a tabbi aljanna ñi nga xam ne jëf yu bon yi mooy sabab yi tax a tabbi sawara waaye xadis bi nag dafay leeral ne seen tabbi aljanna googee du seen jëfi kese du seen jëfi kese ndax yàlla kum topp rek kum xisaab rek jàpp la waaye nag munta ñàkk mu ànd ak njéggalug yàlla yërmandeem subhanahu wa taala kon dañ koo tàbbee ci saw bi seeni jëf waaye nag la ko waral nag mooy yërmande sunu borom subhanahu wa la ak njéggalam gum leen jagleel moo tax sëñ bi ne kon jaamu jaamu jaamu yëkkati màggu borom bi rekk la te lu mënuñu ko def ba jot ci xàqam waaye alhamdulilahi rabbil alamin sunu xel mën naa dal bu baax a baax ndax sëriñ bi loolu luñ ci déggee mooy sëriñ bi yërmandee suñu borom rekk la yërmande sunu borom ci bindeef yépp rawate ni ci nun talibe yi ndax li wax ne amarani rabbi bi an usarriha bi annani malaadun waximan wa mafsau fa man araada xayra fi kilti fi daani fal yalud bi sëñ bi daa wax ne sama borom moo digal ne ma naa leen leeral ne leen man mii kat wéeruwaay laa kaaraange la ab rawukaay la kon ñëw leen wéeru ci man kon wéeru ci moom kon doy na sëkk xel mu dal am na fu wax fu ilay qaadal mustafa ma sarra wa sarmadan lastu ulaaxi durra dalika fadlullah yutihi lati yashaahu wa xaalili xul bi ludi neen mustafa wamatal na ma lépp luy mbégte luy bëgg la rek taba ba faw duma mas a dajeeg jenn lor loolu na ngeen la yàlla la tey yàlla mooy jagleel ngeen ku ko soob suñu ba moom na moom ko jagleel ba noppi ne ma wool nit ñi ñu wéeru ci yow del waxaat ne yax yaxmi nabiyu bil ilahi kullaman bi yaloodu saa falaaxin wa aman yonent bi ci ci ndigal suñu ba aar na aar na képp ku wéeru ci man mu doon ko am kóolute di borom bu texe itam di ko làmboo texe ak kóolute kon bu sëñ Muntaxa nee nanu na sunu lu mën a xel sunu xel mën naa dal ngir sëriñ bi kon yooya la ak yeneen yu bari lool mu teg ci ne sëriñ moom damay wax ne rek dan ko war a jéem a xam waxtu wu nekk di ko jéem a dund ne lu nu ko gën a xam di gën di jege lu na ko gën a dund di mucc di raw loolu lépp day tàbbi ci biir li doon leeral léegi ci tawféexi sun boroom ci sëriñ bi tawféex ji ko sun borom jagleel nga xam ne moom rek kenn fekk ko ca mu daaneel ay waxam ci ne sëriñ bi kenn mënu koo roy kon xam sunu wëtteef te di ca góorgóorlu lu nu man moom rek nuy dimbale sëriñ bi fam jaar boroomam ak la daj kenn dootu fa jaar kenn dootu fa àgg kon mën na ko roy mooy lala fa mu jaar boroomam kenn jaaru ko nag suñu saga xam ne xutba yaag la xaw xaw si ak tab yépp ba tey kenn jaarugul fa mu jaar boroomam mënee fu la roy mënee fu la rey te nga roy ak rey kenn nga bàmba sëñ bay jaxte bu ko defee nag li nuy jaaxale mooy kàddu yi barki démb yi ci soññee ak jàjjee ci njuumte li nga xam ne amoon na mu di dégg la sëriñ bi rek lañu bëgg sëriñ bi rek lanu gëm moom rek lanu yaakaar xëy na njuumte daa mënta ñàkk ndax lu fi am rek ñooma lu fi am rek murid yee waaye njumte mën ta ñàkk waaye nag lu nu bëgg-bëgg sëriñ bi bu nu ko yaakaaree aju ci moom ak lu nu ko liggéeyal liggéey liggéeyal waruñu yóbbu nag ci njumte def loo xam ne lu lu lu wërta am la muy njumte amoon ba sëñ bi doon ci yëkkati kàddoom da doon baax suñu amee lu ñu naqari rek buñ defoon délégation dem ci sëñ bi ne ko kan am na na nanga nangam naqari nanu xaw naa leen teg ci aw yoon waaye njum demul da ñàkk nag suñu borom suñu wàllam nu doon layal ci kanam boromam day wax ne donte dañ laa moyit lam yusu ko bi ka axat yemali ñu laa kenn te seen yaram day attanut attanut attanut sa mbugal waaye seeni xol day musulaa mooy xulubuhum laysa tabil abada ila sewak min hona ila gada kon loolu mooy mooy dalaat murid yi foofu sëñ tubaa dong lañ bëgg sëñ tubaa dong lañ gëm moom dong lañ yaakaar moo tax ba su mu yëkkatee kàddu dañoo bàyyi lépp dañoo bàyyi lañ doon def lépp jëfe ndigal ñëpp dellu ci kër ya kon kon noo noo noo ngi tuubal sëriñ bi tuubal murid yépp ca loola xam ne njuumte la waaye nag euh, soñ boobu naa tax ëllëg ñu xam fu ñuy teg teg sunu tànk so ñu tëji ko nag ñaan gi sëriñ bi tëji woon ca waxtaan yi noonu leeral daan daan ñu ngi ñaan sunu borom mu gàttaan mu mu mu euh, mu gën noo gindi ci boppam gën noo gindi ci sëriñ bi ba nu gën a mën a wéetal yàlla te sax ca dàkk gën a mën a xam sëriñ bi di ko gën a dund yàlla na ko sunu boom gàttandoo ci biir ak bitti tey ak ëllëg loolu nag amin rekk ca war a topp tey ñaan mu yàgg fi lool te wér teyit mu fiiroo ngërëmal sëriñ Tuubaa yàlla na sunu boom mbooli dimbale mbooli defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangu na sunu talibe wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.